waaw ñun dañuy sot dañuy sot dëgg la te duñ tricher dëgg la kii suñu feer la dëgg la suñu di ko tiitaroo bilaay dëgg la ñun amuñu lu dul Géejawaay bilaay dëgg la kii nekkatul euh, Aziz bu Géejawaay rek ah, ah. Aziz bu àdduna la monde entier monde entier ah. na la yàlla defal jàmm yal na yàlla musal cet yàlla musal ci làmmiñ yeeg ah. jiw waaw d'accord waaye man dama lay ñaanal dama kontaan bi sama fier laa ji waaw ak moom ñoo am bi yeeg jiw waaw tàngaay laa nar a nekk mu waaw pale yow ay quatre-vingt-seize waaw yii daal yéeg waaw waaw waaw mën nañu ma faram. moom ak moom Aliou dëgg la waaw waaw d'accord waaye man dama lay ñaanal. loolu loolu laaw indiwul ñu tey loolu indiwul ñu tey. loolu indiwul ñu tey dama lay ñaanal tey. suñu ko def seen ndax li suñu frère la. xoolal nag yi xoolal gileem yi xoolal xar yi xoolal miss yi. am na yeneen yi nekk fee deuxième rang Fall bokk ci dëkk bi xamul tax ma bëgg waaw yow da ngaa baax ndeysaan ndeysaan mën a def lu rafet dëgg la mën a wax lu rafet dëgg la balaa dégg nga wax wax yoo xam ne. lu ma la jàppoon gën naa kaa yokk. mooy doo mukk ci àdduna. te ko am lu baax ma ko. dafa yokk sama cofeel sama diggante maa la gën a bëgg yow da baax. bul ànd ak ku waye bi. mukk ci àdduna. bul ànd ak ku doye bi. mukk ci àdduna. bul ànd ak ku xamul boppam. mukk ci àdduna. ànd ak respecté wul ay mukk ci àdduna loolu boo ko defee yokk rek nga ciy def barke Sëriñ Bamba yàlla na la yàlla barke tànk laa ne ba baax sa patron doomam ak kër ga ñëpp ma bëgg. biraan waaw. yéen daal man ngeen di mujj leen sama mag Aziz Ala Ndiaye je suis fier de toi. de toi Aziz. buñ naan centre de pour ñu lay. yow Mbacke yi barki Serigne Bamba Xaadimu Rasul ñii dañoo yelloo teraanga ñii dañoo yelloo teraanga ñii fu ñu dem fekk fa teraanga rek fa ñu jóge bàyyi nañ fa teraanga barke Serigne Bamba Xaadim Rasul dëgg la dëgg Cissé sama papa jaa ngi nii sa téer baa ngi nii sa baa ngi nii sa booy ñoo bokk mbuus kii sama day def na ma kécop am ma jël waaw abala sama jaa ngi nii mi ngi nii barki sëñ Bamba du toog deux jours yu ma woowul ñu waxtaan quatre heures de temps la ragaloo féete Ifra ragaloo féete Ifra da ngaa baax barki sëñ Bamba kii dafa baax gaynde la Pikine ak nu mu yaatoo muy fësal diggantee ak bala Gaye 2 chaque jour loolu zem loolu zem alaaji Masata ngi nii sama papa ji Cissé sama papa jaa ngi nii waaw waaw ala ba ay Aziz yoonu murid yëpp kontaan nañ yoonu murid yëpp kontaan nañ gis nañ teraanga ji ci mbàkke mbàkke yi yoonu murid kontaan nañu Masata ki amuñu fayam barki sëriñ Bamba waaye ci say tànk lay ci say tànk la nekk. bilaay dëgg la. barki sëñ Bamba. li mu defati. ndax diggante 20 jours màggal ak gàmm ku ne xam na ni daa jege. màggal ak gàmm budget 120 millions 130 millions. Aziz Ale man yow rek yaa ma ñor. barki sëriñ Bamba yow rek yaa ma ñor kenn ñoruma. waaw lii rek a war ñuy wax ci yow lu baax kese amul leneen. neen yow dëkk bi liñ fi def ko ko fi def tu es notre barki Serigne Bamba. wax leen. yal na guddal sa fan ñoo ngi may saw suñu kii kenn du moom. man su bi non non non. barki Serigne Bamba. lii kenn mosu gis. saf saf yoof la ñu jël indi fii biir Tiwaawan góor a maane daraate sama papa ngi nii allah Masata Ndiaye bu baax la fierté fierté Ndiaye nañu nii ma jox nag amul soble saf yi ma joxoon yëpp sama papa ji ñëw na mi ngi nii Masata Ndiaye xam nga gis nga loolu ndeysaan ndeysaan mi ngi noonu Cheikh Cheikh maa lay siiwal de ana Cheikh Senghor ah mais doon may sob daa xaj ci kenn yëg ngeen ni man la def man la def